tay ji euh ñu tek ci table bi euh ay arrêté donc 23 arrêtés yo xamni euh pour euh 4000 manam ñenti junni ak fanwer bénéficiaire euh té euh, arrêté yoy tamit euh, amna ñaari patch am ben patch bo xamni 11 arrêtés la lolu euh mi ngi toucher ñetti avec ak euh, ñenti témèr ak juroomi bénéficiaire euh benen bi nek 625 bénéficiaires euh, mu nekk euh, juróom benn téeméer ak euh, ñaar fukk ak juróom donc bénéficiaire donc globalement mu nekk les quatre mille trente bénéficiaires loolu dañ ko waroon wone signer ko pour mu mën a soulager enseignants parce que enseignants yi dañ leen soxla ci leneen lii daf leen di tardel lii dafay tardel euh, système bi day en réalité donc dañ ci waroon pour soulager et puis ensemble nous allons passer à l'essentiel à autre chose am tamit une décision euh, euh, décision pour de nomination de am ay arrêté enseignant euh, à Téméri euh, enseignant, donc 1100 plus les 4000. Donc, petite décision, Tégui-Yugel, presque 5000 et quelques enseignants, nous avons dit que nous de dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit waxtan gi ñu euh, am sank dafa amone solo trop d'abord woné importance mu nekkoon occasion pour man sax ma wax voyage boo xam ne defoon naa ko mission bi ma defoon ak euh, seen beneen collègue ñoom euh, muy Dame comme secrétaire général syndicat li ma jàng foofu euh, te kuréel googu presque téeméer ak ñeenti fukk réew ñoo fa teewoon ay ministère éducation nationale ak ay experts u àdduna xarañ lool ci wàllu éducation jàngale mais li ñu mën retenir ci message euh, ak seen expérience ñom ñep moy dara mënul sorti ci secteur éducation soudé, dee cër ak gëdd gi ñu wara jox enseignant jox ñuko donc enseignant moy euh, nek ci début bi nek nek ci milieu bi mo wara nek tamit ci ko xamni moy égali mbir bi euh, ci ci élève bi ci xalé bi kon day am solo trop ñu nek def ko ci condition yo xamni euh, dina ak li nous bëgg donc euh, gis ni que enseignant la wala que les syndicats, ñun département ministériel Nous tarder gis ni am expérience am donc occasion le pour ñun ñu mën appuyer ci seen xam gis-gis pour faire avancer les choses naturellement nous pays la euh, soo gisee ñoom seen biir sax amna ay courriel yu bari plus kuréelu euh, département ministériel plus yenen courriel ak yeneen experts euh, ensemble donc je pense que mën nañu guenné et mettre sur la table lo xamni dina mën a avancer loo suñu système éducatif comme niñ ko bëggé kon mu nek ay moment fort d'échange té volonté surtout daf ci am solo confiance bobu dafay am solo lool ñu continuer de ko cultiver